ñu ànd ak nag euh, Daouda Mine tey ci suba si li mu wax ci candidature boobu nga xamante ni ñu moo di plan B bu Ousmane ñu xollam ci wax dellu si boo xoolee affaire candidature code électoral la ciy wax et je renvoie les gens à l' article L57 article L57 moo ne tout été tout électeur képp ku nga xamante ne électeur nga régulièrement inscrit mën nga bokk ci présidentielle su fekkee ni respecté li nga xam mooy condition d' âge mooy amoo lu yées 35 ans ëppaloo lu mat 75 ans nekk nga ku nga xamante ne tu jouis de tes droits civiques et politiques amuloo benn déchéance muy premier alinéa bi mais deuxième alinéa bi daf ne képp ku nga xamante ne sa candidature parti politique régulièrement ko mën a wala mu nekk une coalition de de de partis politiques régulièrement constitués wala mu nekk euh, entité indépendante yu nga xam dañoo lëkkaloo daal di daal di daal di lay tabb maintenant dañ ne candidat bi nga xamante ne dañ koy tabb ci euh, par une entité indépendante dafa nekk nga xamante ne mosul militer ci parti politique wala ba mu cessé militantisme bi ëpp na un an donc tey li nga ciy dégg mooy lan bu fekkee ne dañoo dissoudre euh, Pastef jo Jomaay Faye Pastef mënu ko tabb parce que mm. dissoudre nañ ko ce plus un parti légalement constitué mm. bu fekkee ne dafa bëgg dem en tant que indépendant du ko mën parce que ba ñu dissoudre Pastef matagul matagul un an te il a il a il muy ay ay coalition de partis politiques beneen parti politique bu am récépissé régulièrement bu am récépissé au niveau du ministère de l'intérieur lëkkaloo ak moom daal di koy tabb comme candidat à partir de ce moment là mën na nekk parce que gis nañ ko fi ñu nga xamante ni amuñu récépissé ñu tabb leen ñu bokk ci ay élections présidentielles. gis nañ ko fee. Euh, en ma Madické Niang PDS la jóge woon amul woon amul woon amul woon beneen récépissé la la jël pour mën a participer à des à une présidentielle. donc bu ñu basé woo ci loolu conseil constitutionnel je pense pas que mën na mën na mën na ko tere mu bokk sous prétexte que dañoo dañoo dañoo dissoudre euh, Pastef beneen bi également c'est par rapport ak le fait que inculpé nañ ko. actuellement nii mi ngi prison mais loolu aussi tant qu'il y a pas une condamnation définitive amul lenn lu ko mun tere mm-hmm. parce que il a juste été inculpé kenn auditionné ko dans le fond xam nga euh, instruction bi jeexagul kenn jugé ko à supposer que même mu jeexoon tey tey tey ba ñu jugé ko condamné ko amoon na possibilité def appel et que la décision n'est pas définitive kenn mënu koo tere parce que il ne perd pas éligibilité mmh. mmh. donc gis nañ fi fii ñu nga xamante ne ils étaient en prison Barthélémy Diaz en l'occurrence bi nga xamante ne mi ngi woon prison bañ koy dugal ci liste yi euh, élection législative yi ba muy nekk député à l'Assemblée nationale mmh. donc loolu loolu Aïcha mi ngi noonu alaaji dégg nga kàddu yu uh, Daouda Mine yëkkati jëm ci uh, fi mu toll nii nag ex Pastef mën nañu wax lool il faut ñu am stratégie bu baax parce que mënuñu gis koo xam ne da doon militer ci benn partie bu nga xam ne bi ñu ko dissoudre rek léegi matagul un an il faut ñu dem sàkku ji peut-être coalition bu mag bu am récépissé uh, pour ñu mën a doxal li ñu bëgg a doxal. nga xam nga parrain saa àddina. Mm. <clears throat> lépp loo gis da koy bàyyi ak ñi nga xamante ni. ñooy ñi ko jàng ñooy ñi ko xam du ñu ay cuune parti boo xamante ni bii taxaw nga pour laaj réew mi depuis deux mille vingt et ba nëga liñ bëgg ci yow mënta ne maanaam nasaxal la nelawal la ci wàllu yoon ak yooyu ba léegi lenn mënu cee ne kon buñ la waxee ne la Pastef gii kat. ni tànn nañ Bassirou Diomaye fay gëstu nañ ci wàll yoon fi ñu war a mm-hmm. ba teg ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye nag jàpp naa ni candidature Bassirou Diomaye Faye euh, mbir la moo xamante ni euh, ab pion la boo xam ne Ousmane ko dox na ko boo xam ne jaaxal na état bi mm. waaw jaaxal gi mu leen jaaxal lenn bokk na ci mooy que ni lu tax ñu tànn ku nekk ci biir prison bi mm-hmm. te am ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci bitti te ñi ci bitti bokk ci ñi nga xam ne ñoo doon waxtaanee ngir ñu tànn ki ci prison bi mm-hmm. xam nga dalay wan ne la Pastef bokkut ak parti yi ba tey ni nga xamante ni noonu lañ leen mm-hmm. tëggee ak nit ñuy doxee bokkuñu parce que boo seetee président Macky Sall ba mu tànnee rek ca la parti ba tas ñii jaar nii ñii jaar ne te mu tànn ay signes ngi wane ni sénégalais yi xamuñu ko parce que président Macky Sall toog na ci boppam ñu yóbbante ko ci Amadou Ba te fekk Amadou ngi toog loolu nekk loo xam ne lu reelu la waaye nag ay signes la yuy montre ne ki nga tànn du waaja Bassirou Diomaye Faye ñu ne tànn nañ ko mu nekk loo xamante ni tey wër na àdduna xam nga damay faral di wax ni euh, Bassirou Diomaye Faye bu Ousmane ko doon gañee cinquante et un pour cent wala cinquante kii pour cent Bassirou Diomaye Faye mën naa gagné soixante pour cent hmm. waaw c'est parce que mooy ki Sonko yebal bu fekkente ni dañu dem ci ay élection mooy ki nga xam ni moom la Sonko yebal te gëw ma ni gëm naa ni Pastef am na yeneen clé yoo xamante ni bi am na ko yoo xam ni leeragut ba tey ci kii parce que dañuy wuree maanaam gars yi dañu nekk ci ay stratégie ay dox parce que président Macky Sall euh, ni muy doxee ay pion Ousmane Sonko noonu lay doxee ay pion maanaam tey bu fekkee ne ñoom ñaar dañu nekk cote cote dinañ xool nag ca cappaandaw ga kan mooy el tactico dëggantaan mm. maanaam fi mu toll dañu nekkaat ci beneen compétition maanaam dañ ne président Macky Sall bokkut waaye dafa mujj doon entraîneur léegi dafa génn Ousmane Sonko dafa defe ne éliminé na ko mais daf ko delloo place entraîneur maanaam ñoom ñaar ñooy compétir fi mu toll nii maanaam yi ñuy teg ak li Ousmane Sonko di teg maanaam fi mu toll nii ñoom ñaar ñoom ñoo nekk maanaam Bassirou Diomaye fay gars yi du ñu gis Bassirou Amadou Ba gars yi gisuñu Amadou Ba Macky lañu gis Bassirou it gars yi gisuñu Bassirou mais Sonko lañu gis ci kanam Bassirou même bu dee demaat nañ ba ci kanam. mu soppeeku parce que Sonko fi mu toll da ko génne mën na nekk sax lièvre boo xamante ne bi gars yi mën nañu topp ak coow li te fekk du moom. Hmm. mais loolu yëpp mooy charme jeu bi. d'accord maanaam ni Pastef kase li nga xam ni mooy jëwam ba noppi nag maîtriser ko xam nga nga def li nga def ba noppi maîtriser ko hmm. c'est très important maanaam verrouiller mbir yi nga xamante ne bi yow loo ne lii lii la. Hmm. leneen la ngay nar. peut-être sax kenn xamul parce que doon wax ñoom amuñu plan B. waaw amuñu plan B. plan A rek lañu am. waaw parce que ki ñu tànn rek mooy plan A. Hmm. amuñu plan B. Hmm. parce que ki tànn ak ku mu mën a doon même bu doon yow mii lañ tànn Sonko nga sonk mooy plan A mooy plan B mooy plan Z. maanaam ñoom ñëpp dañuy wëlbatiku. Hmm. doon Sonko maanaam tey bu la tànnee yow ma jigéen Diop. nit ñi gisatuñ ma jigéen Diop. Sonko la ñuy gis. loolu mooy li nga xamante ni mooy que maanaam tey waxoon naa la fi ne la ñaari mbir yi ñooy li ne maanaam Sonko dem mooy bi gën ci président Macky mais gis nga bu keneen demee ku sonk moo mm. mooy yées ci ñoom te defe naa ne nag ñoom li waroon a gën ci ñoom mm. mooy ñu fexe woon ba Ousmane Sonko ñoom ñoo waroon a xeex pour Ousmane Sonko dem. mais fi mu toll nii ñu ngi ubbi beneen bunt boo xamante ni bii seen njariñ ñëwu ci. mais El yaa ngi wax léegi euh, affaire compétition est-ce que tamit li dal Amadou Ba puisque Macky Sall moom moo ko tànn ne euh, moom la ñuy jiital 2024 euh, gars yi commencé di génn di xas ki nga xamante ne ni moom moo di Bassirou Diomaye fay di ko traité de salafiste ñi naan mosul dem ci kër xalif général yi pour ziar ak yooyu noonu est-ce que. du dem ba fi ñu dugal Amadou Ba ñu dugal ko. non ñooñu ñu ngi koy defar loolu lañ looloo defar Sonko di salafiste terroriste doo dem si xalif gëmoo dara looloo defar Sonko parce que loolu moo tax nit ñi di gëstu kii mooy kat hmm. bu ñu la gëstoo rek xam la Basiru kenn xamul ko fi lu ñaaw sénégalais bu honnête la liggéey taxaw nekk ci li mu nekk fii Sonko jaar fa la jaar. Hmm. Basiru boo gisee lu tax kenn mënu ko topp maanaam li ci Sonko yëpp a ngi ci moom. bu fekkoon ne sàccoon na dërëmu état bi léegi tey ay problème dal ci kaw mais dalay wóor ne la ku jub la te mës naa ko seetaat benn émission ci may mën a dul fay muy expliquer jaar-jaaram maanaam dafa am yu bari yoo xamante ne bi nit ñi parfois duñu xool nit ki hmm. parfois duñu xool nit ki maanaam ñi nga xamante ne bi tey ñoom ñoo composé Pastef hmm. maanaam ay nit lañ yoo xamante ne bi dañu nekkoon ci fi nga xam ne fi lañ nekk maanaam mënoon a dund te du ñu am benn jafe-jafe mais jafe-jafe yi ñu nekk nii jafe-jafey Sénégal dong leen ko rek bëgg a lijjanti jafe-jafey Sénégal moom moo mel ni lu lëjal seeni mbir. mais bu ñu fàtte ne ay jafe-jafe moo ko dugal ci kaso bi bañ naka ba bi affaire yi Sonko yi génnee daanaka li ñuy toppee Sonko moom lañ koy toppee est-ce que tamit yooyu mënul fexewaat ni ñu yëngalaatee dossier am pour ubbiwaat yeneen i mbir yoo. xamante ni waaw nañu ubbi fi toll nii même bu ñu ubbee dossier yi day gën a neex rek. donc fu mu toll nii ñoom ñi ngi ci kàmb ñi ngi ci pant boo xamante ne bi maanaam ñoom ñi ñu jàkkaar lool ñoom Pastef xam nañ ñi ñuy bëgg mais ñii xamuñu li waa Pastef bëgg loolu mooy li nga xam ni mooy l'essentiel ci mbir mi hmm. maanaam Sonko maanaam dafa mel ni dafay gis gars yi mais gars yi dañoo nekk ci lëndam ñoom gisuñu ko fi mu toll nii hmm. parce que ci jamono ji ñu jàppoon ne man maanaam ñu tegoon yëpp defe ne buñ ko tegee. day jeex affaire yi jeex la ñu tegoon yëpp dafa faussé. maanaam yi tegoon yëpp doxut saa ñu tegee dara ngir gën a suul waa ji waa ji gën a jëm kaw mm-hmm. ba tey ji compétition am diggante président Macky Sall ak candidat président Macky Sall maanaam Sonko ak Macky Sall ñoom ñooy nekk ak candidat ñoom ñoo nekk li nga xamante ni bi tey ñoom ñooy compétir président Macky Sall yi dem na de parce que day compétir bu amee défaite am na défaite day mel ni Aliou Cissé mu yóbbu équipe ñu gañe ko mhm. mu naan man bokkuma ci ñoom Sadio Mané moom defet bi déedéet yow yaay borom defet bi mhm. yaay yaay coach bi d'accord waaw moo tànn équipe yabal ko mhm. Sonko tànn équipe compétition bi demaat na. Ah, nañ ñaan yàlla rek lépp mujjee si jàmm. ak fekk tamit mu nekk li Sénégalais yépp bëgg.